لا يبني اليوم نصرا Serigne Touba gi ñëpp ñëw nañu ñu bëgg nag bala ñoo wax benn kàddu sëriñ Bassirou kan alxuraan xam nga ni lépp sëriñ Bamba te sëriñ bi mbiram mépp alxuraan koy tijji alxuraan koy tëj ñu bëgg sëriñ Bassirou kan nga jige si def na nga daan def. jàngal ñu aw saar comme na nga ko daan defee rek ñu ubbee ko jataay bi léemoo ko ko ñu doog a tàmbali waxtaan wi tey jii nag Basiru yomb fay na jombas ba wis ko xaal ndax bis sëñ Ibnu Amar buñ ko jëlee joxaat nañ ko borom kan lañ ko jox ah sëriñ Mbay Amar lañ tudde bis bi tey kon bis bi mus sa génn bokki waaye seer la ci tey jii basiiru nga tàmbali rek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 وإذ قال إبراهيم رب أرني بأرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطائر فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا أن واعلموا أن الله عزيز حكيم jërëjëf Serigne Bassirou Kane Serigne Ibrahima Diop xasida bàyyi ko ba Ndakaaru nga ñëw feeñal sa yéene ñu bind délégation yi bind kilifa yi fi teew doo ko tàmbali waxtaan wi sunu maam daaru amar ak sëriñ ak sunu maam mbay amar ñoom lañu faye bis bi ren ñu bàyyi xel ni bis bi delloo nañ ko ñi ko moom délégation yu am solo ñëw noonu bàyyi ko ci kër yooyu nga xam ni seen kër la ñu jógee day benn apartement rek ñu génn ci néeg bi dem ci néeg bi kon ñu déglu sëriñ Ibrahima jóg mu yëkkati xasaay nam ko daan defee bisimilah. anta rafiqi lil jinaan yaa man yasur وليت طيب الجنان يا خير سكر محكم أنت رفيقي للجنان يا من يسور للمكان وليت طيب الجنان يا خير ذكر محكم يا خير ذكر رتلا بفم ساكن تلا سخن سواي من خلا وليكن حكمي يا خير منزل جني ما خاب ذات الدبري ربي يوسف فكري بكرب خير تهمي ñu ngi jëkk a tàmbalee ci tudd sëriñ Cheikh Baara Laat mu ñëw ci turu alxalifa al am li taifa al muridina Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke yàlla na fi yàgg te te sëriñ Cheikh Baara mii yàlla na fi yàgg ñëw dina fi fekk ñëw na fi ay ati at sëriñ Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Sidi Mouhtar xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine moom itam teew na fi sëriñ Cheikh Abdou Mbacke mu sëriñ daam atta itam teew teew teew na fi nu ngi sant bu baax a baax a baax së sëriñ alhaaji ndong teew na ci sëriñ abdourahman ndaw itam teew na fi pap balla kulubali itam teew na fi sëriñ xabaan mbàkke moom sëriñ mouhamadul fàllu mbàkke itam teew na fi sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ mbàkke madina itam teew na fi sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulahat yabal na fi doomam sëriñ Moodu Mbàkke ak rakkam sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Bamba Sugu itam teew na fi yàgg na fee teew nu ngi ñaan yàlla mu yàgg fee teew lu bare bare ak ñépp ñi fi teew sëriñ Cheikhul Khadim moom sëriñ Sidi teew na fi sëriñ Moustapha Ñang moom sëriñ Bachiru Ñang Tayba itam teew na fi sëriñ Ousmane Gueye mbaaxeen teew na fi sëriñ Cheikh mbakke gàdd afe itam teew na fi sëriñ Yadaali mbakke mum caar itam teew na fi sëriñ ma Amar euh, sëriñ Mame Gumba Amar moo ko yebal si xalifa sëriñ May Amar teewal fi waa kër sëriñ May Amar ñëpp sëriñ Murtala Amar gàdd xalifa sëriñ Mor Farim Amar moom itam teew na fi soxna Walimati Diouf

ñëw na ci njiital sëriñ Jiili mu sëriñ Abdul Wadoud xisbu tarqiya daayira boobu yabal si nañ fi sëriñ Mouhamadou Seck ak sëriñ sëriñ Mouhamadou Seck sëriñ Moustapha Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke waaw waaw moo fi teewal si daayira xisbu tarqiya boobu sëriñ Moustapha Mbay moom Baye Gallo moo fi teewal si daayira boobu ak Mouhamadou Seck daayira isbu tarxiya ñoom ñooñu ñoo fi teewal daayira boobu sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Mansour moom sëriñ Mansour itam teew na fi sëriñ Moussa Amar teewal na waa kër Baye Amar Baye Modou Amar Kolo Kolo Kolobaan Serigne Baara Silla teewal na waa kër Serigne Arif Arif Lo sëriñ Muxtaar Sabara ñoom ñëpp teewoon nañ fi sëriñ Moustapha Ndiaye teew na fi ànd ak euh, teewal fi waa kër sëriñ Daaru Assane Ndiaye gépp sëriñ Daam Silla moom itam teew na fi sëriñ Muntaxa Mbow teew na fi maam Waly teew na fi maam Faati Guèye teew na fi musli sàll itam teew na fi moom soxna astu moom sëriñ fàllu soxna xari mbàkke itam teew na fi moom sëriñ moodu soxna zeynabu mbàkke bintu sëriñ mbàkke soxna loo moom it teew na fi ànd ak uh, sëriñam sëriñ asan njaay moom sëriñ mbay fàlloo sëriñ As Amar teew na fi sëriñ Maodo sëriñ Modou May sëriñ Mansour Amar Ndangalma ñi ñëpp teew nañ fi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm sëriñ Mouhamadou Mbacke mu sëriñ Modou Kara naka noonu soxna maam Faati Mbacke Kara mu sëriñ Modou Kara soxna ndëkku Mbacke moom sëriñ Ousmane. ñoom ñëpp teew nañ fi ñu ngi leen di sant ci loolu di leen gërëm sëriñ Abdul Aziz Mbacke ibnu sëriñ Bachirou moom sooñ sëriñ Bachirou Khoudia teew na fi moom sëriñ Baara sëriñ Abdul Latif Mbacke moom sëriñ Siril Muxtaar teew na fi sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Kajoor teew na fi sëriñ Maam Thierno Mbacke moom teew na fi moom Maam Thierno. moom sëriñ maam Thierno moom sëriñ Cheikh Awa Balla soxna Khoudia Tall soxna Khady soxna Ndey Ndiaye sëriñ Tidiane Kassé itam journaliste teew na fi sëriñ Pape Codelo mi nekkal yore baatu xalif général ca Louga yabal na fi doomam sëriñ Baara Astou Fall sëriñ Bassirou itam teew na fi soxna fi liggéey ak waa këram sëriñ Muxtaar Amar Naameen teew na fi sëriñ Mbàkke ibnu sëriñ Basiiru Xujja itam teew na fi. sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Abdul Xadim xari sëriñ Abdul Xadim teew na fi itam naka noonu sëriñ Modou Karasil la moom itam bokk na ci ñi nga xam ne kilifa yi nga xam ne teew na fi sëriñ Njaga Jaxumpa teew na fi sëriñ Moustapha Dieng Dakar teew na fi Alaaji Jóob Touba teew na fi sëriñ abdoulahat ndiaye teew na fi sëriñ abdou mbàkke gàdd njaxal njaxal teew na fi sëriñ jiili mbàkke yooyu teew na fi sëriñ kumbaan jenn teew na fi sëriñ abdoulahat mbàkke ibnu sëriñ mansour mbàkke sëriñ sàmba jaañ ak waa ceyeen ñi ñëpp teew na fi ñu ngi sant ci sëriñ Saliou Amarum sëriñ Aliou Amar mi ngi nii too teew na fi daanaka jërutul ñoo ko bokk ñoo ko bokk sëriñ Cheikh Silla diiwaan mi ngi nii di dog a yegsi kon ni ma waxoon ci tàmbali bi jàll mën laa yaxta suñ borom danga mu dul yàq waaye ñu ngi déglu bu ñu gisee ne am na kenn ku ma jël wala koo xam ne damaa yàq sax ci tur wi ñu ñëw wax ni nii lañ ko war a waxee wala kii waxuñu ko war nañ ko wax buñ ko waxee orateur bi dana ko jot li ni mu ni mu gën a baaxe nañ wax ci tur parrain yi yem ci te présenté. ñi nga xam ne dañ leen ci rendre hommage waaye laata may dugg ci loolu dañuy compléter présentation bi ndax ni ko sëñ yi nu waxee woon sànq kuñ gis ni war nañ koo tudd te tudduñu ko rek ñu tudd ko kon uh, waa kër maam Omar Mané ñi ngi fi waa kër El ma Magoumba Amar mi ngi fi ñi ngi fi Awa Amar Maguette Amar Aliou Amar mu Amar Mané Njoba Amar mu El Hadj Amar Xayta Amar Serigne Abo mu Serigne Cheikh Say Serigne Cheikh Babou Touba Serigne Fallou Amar Sine daayira Serigne Mbacke Madina ak daayira Serigne Amar yépp ñu ngi fi. buñ paree loolu nag comme niñ ko doon annoncé dafa am ay parrains am itam ñu ñuy rendre hommage ñu ñuy sargal ci bis bi ci ñooñu dañuy seet ci mag ñi àndoon ak seen hymne édition bu ne ñu jël ci ñaar rendre leen hommage ah, ñu jël El Hadj Mor Talla ak Baye Moussa Kane ginnaaw nag président dañu woon ñu dindi ñu wàññi liste bi mu ni ma ginnaaw yow xam nga leen ñoom ñaar ñépp waxal lu tax ñu sargal leen kon charge bi xaw na diis mais ah danañ ko gàddu El Hadj Momar xarit la woon ci kër gi wëllëre la fi woon ba mel ni ab taalibe El Hadj Momar fu sëriñ Ibnu mosee soxla amatut soxla feneen ñu yàgg ñëw màggalu jéemul daanañ dajeeg moom ci cérémonie bii mu taxaw fii di ko organise moom bu màggalu jéemul ñëwaan bu duggee jéemul du sori daal la ba ba muy ñibbi ba ku ko gis dangay jàpp ni kii taalibeeb sëriñ Ibnu la waaye nag xam naa ne nam doon jege sëriñ Ibnu jegewu ko woon sëriñam ndax ah ñoo dëkk Mbàkke te dañ doon daje ci kër gi kon xam naa ci moom lu bari am na ñu mel ni moom ñu toll ni moom ñu doonoon taalibee sëriñ bi mënoon def la El Hadj Momar doon def waaye moom moo ko doon def kon kooku jaadu na ci bisub sëriñ mu ñu sargal ko fi mais également xamal nit ñi lu tax keneen ki Baye Moussa Kane c'est difficile mais il faut ñu def ko Baye Moussa Baye Moussa moo njëkk doon taalibe sëriñ mu Amar kenn jiituwu ko ci ndax booba sëriñ bi demagul njaareem doon tut tànk sëriñ bayti ndongo joor xool Baye Moussa ci taxawaayam ba mu doy ko mu ne ko àndal ma ak ibnu mii fu mu fanaan fu mu fanaan nanga fa fanaan fu mu yendu nanga fa yendu noonu la ko defee ginnaaw sëñ Bayti Ndongo Joor liggéey na ak xalifaam yépp liggéey na ak xalifaam yépp waaye terewul moom taalibeeb sëñ Ibnu la woon moom ndax sëñ Ibnu ay magam la fi nekkaloon moom it mu nekk fekki magam waaye moom la sëñ Baytu Ndongo Joor tànnoon jox ko sëñ mu ànd ak moom ci gàttal ba mooy taalibe darmaan ko bi sëriñ Ibnu njëkk a denc armeeri Tuuba ci nag ah boole gu leen sëriñ boole woon ndax ba muy tëdd sañu noo nga ko ngoo waaye bis ba muy génn àdduna ci la sëriñ ñu ñibbisi ñu indi ko guddi ku ne xam na ne armeeru Touba dañ ko daan tëj sëñ nu Mboojeen la jóge ñëw fëgg armeel yi ñu ubbil ko mu denc ko ci guddi gi lépp ndax am fu mu ko tegoon manoon nañ nañ bàyyi ba suba waaye dafa ñëw taxawu ko ba jébbal ko Sëriñ Tuubaa wëlbatiku taxawu ak njabootam kon e, loolu dox seen diggante moo tax tey ñu tànn Baye Moussa Kane di ko sargal ci tënk noonu laay yem parce que comme li ma ko waxee woon wax ci sa bopp yombut sa abdullahi xaadimu rasul دنيا واخرى اسمة وخير رسول وبالبسارات وبالسرور حمد المماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي وآل عيماس يا بن جدي فجأة جمعت جمداو من وقف الديوان ينواو day fal di fal ci lu gaaw sëriñ baara mat naa ragal ci xarnu bi boo bëggatee buur itam boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara mbàkke lii dafa am loo xam ne ak jagleel kon sëriñ bi nee na ñu ngi la ci ndokkeel di ci ndokkeel njaboot gi yëpp te di la sant tam nag cant koo xam ne amul fu mu tàmbulee amul fu mu yëpp di sàkku nga jot li koo ci njaboot gi yëpp itam ne ko ndax doxee lu mel ni ndax soo jiitoo ñu nekk ci sa boo diglee ñu jëf di gëstu leen seen ci la tere ngeen àndandoo nekk benn rek moom lañ bëgg am ndaxte islam moo ñu njëkk a digal loolu Sëriñ Tuubaa bu mu ñëwee fettali ñoom ñi fi toog di sëñ Tuubaa ku ci nekk bi nga ñëwee àndandoo nekk benn rek nga mas di fedd li naka jëkk ndax xam nañ ak bokk lan moo ci nekk ñoom xam nañ ko bu baax a baax dinañ ci ñëwaat ñu nuyu kilifa yi nga xam ne itam dañu fee teew yëpp lim nañ léegi lim lim nañ leen léegi ku mel ni sëriñ Cheikh Abdoulaye sëriñ Ndamata ñu ngi fi toog sëriñ Xaadim Cheikh Cheikh Cheikhul Xaadim ñu ngi fi toog euh, sëriñ Abou sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Marème mel ni sëriñ Moutala Amar mu ngi mel ni sëriñ euh, ak Modou Karaas la ak kilifa yi nga xam ne dañ fay toog te wax ne ñu wax itam mën na la wax xam ni ñu ngi ci biir te nuyu. Euh, Ndongo Ndiaye. mi ngay xam ne dañoo wax ni moom la fi président yebal muy suñu xarit di di suñu mbokk di yàlla di di di di ko dox waxtu baax te di ko yóbbante ñëw ci kilifa bi nga xam ne moo ko yebal di président di nuyu préfet di ko yóbbante ñëw moom itam ci autorité yi nga xam ni ñoo ko tiim yëpp. di nuyu su préfet moom itam ak euh, ñi ñu àndal ñëpp ñi ñu àndal ñëpp ñoo leen di nuyu nuyu boo xam ne amul fu mu tàmbalee waaye tam mën nañoo wax ne amul fu mu yëpp di nuyu soxna euh, Ndioba di nuyu soxna Binte itam soxna Binte ak soxna Ndioba ñu di leen nuyu baax. di la xamal di di nuyu baax di la xamal ne ñoom de am jigéen lañu waaye de mën naa wax ne li ñu li ñu nuyu nemmeeku ngir jëmmi sëñ Tuba li ñu nuyu nemmeeku ngir ngir ngir gi ñu xam ne am naa ko ci njaboot gii mën naa wax góor bi sax duñ ma ko nemmeeku ma ma ma di ko seede ñëpp te ndax loolu gis-gis la. kon yow bi nga xam ne yaay seen kilifa bu ñu fi sëriñ bi yemale ñu toog ci sa kanam la nga xam ne ña ngi koy def du du du du yi day jege ñu soog ñuy woo ngir ñu ñëw ci douze mois sur douze mois dañ dañuy woo téléphone di siyaar di laaj ci loo nekk na fa loolu nag maa ngi leen ciy sant bu baax te di la ko seer yow mi nga xam ne seen kilifa nga ndax buñ ko defutoon rek man du tee ma ma jàpp ndax sëñ Baara moo jëkk moo jëkk jàppeel gi mu nga tàmbalee ci sëñ Baara ak sëñ Tuuba ñëpp teg ci seen dund ñu ko ñëpp fekkal ko suñu wajur yi fi jaar yëpp itam yaakaar naa ne ku ci nekk jëflante na ko ak moom jëflante am na ci ñoo xam ne jëflante nañ ko ak yow ba mu yegg si ci ñun kon muy nuyu bokki darmanko yi nga xam ne dañu fee teew yëpp di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne dañoo ngir bis bi yëpp di di di di nuyu képp ko nga xam ni bis bii moo tax nga jóg di wax rek ne sëriñ Xaadim sëriñ bi dafa wax ne nañu la jot li siyaareem jottali la ay ñaanam jottali la ay cantam itam ci bis bu tedd bii tey nga xam ne na ko taxawal di ko taxawal sama jiw ndax wax naa ko léegi bi may tàmbali kenn amul dara lu gën a koy ñaan ci ki nga xam ne dafa jiitu ak ak ki nga xam ne daf fee daf fee des doon diggante nit ak waajur ndax booy ñaanal sa waajur du am benn intermédiaire du du fenn bu la sa bu la bu la sa waajur jiitoo di ñaan nga di ko ñaanale du jàdd fenn kon nag bis bi bis la ñaan gi ñoo ngi ñaan ñu ci ñun di di wax rek euh, niñ ko baaxoo di waxee Sëriñ Mountakha moom dara nekkul ci lu jaamu yàlla liggéey boole nit ñi ñu nekk benn te boole nit ñi ñu nekk benn jooju euh, wax na ko barki démb lu bare bare bare bare damaa ñu tàmbali ko li ñu li ma fekk ñu tàmbali ko li ma bëgg mooy àggale ko ba tàmbali sama yëfi bopp te loolu itam ñun ñu di ko ñaanal yàlla yeggaleel ko ko ba mu tàmbali yëfi bopp ndax ñëpp xam na ne yoon woowu itam aw na ci digganteem ak Cheikh Sidi Mokhtar itam barki dem wax na ko ci Mbacke wax na ne lépp bi mu ñëwee Mbacke Kajoor du ko sant dafa wax ni yéen a ngi may sant de waaye man maa war a sant ndax Cheikh Sidi Mokhtar lépp loo xam ne def naa ko gannaawam ci ak njabootam damay fay bor te mënut ñu ne ko déedéet amee loo ko benn bor ndax ba mu fi nekkee amul jenn alxames yoo xam ne doo xëy dem ca moom wala nga téléphoné ba mu xam ngànt lii tey nga soog ko bor. kon moom itam aw doxinam mooy noonu euh, boole nit ñi rek ñu nekk benn te gannaaw dëkk bii ak murit yee ñëpp ci yem yàlla dafa boole nit ñi jël ak bokk téyal ko boppam kon ak bokk nekk loo xam ne ñi nga xam ne dañ koo sëq rawatina ñi gën a jigéente nga xam ne mooy dëkk bii ngeen nekk ngeen jàppoo booloo nekk benn يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وقسم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أكبر سن برام مو تيل بابا كيف كوكو جوك سن برام دانا جوك كوجا دفلي أنا تام سن برام نجبو نجبو سن بوك جيني خامن دجان كو أم يالا موليون كو بوني أراواتي نايتام Serigne Touba seen maam ji wax nañ ko léegi ci reportage bi ku am juróom-ñetti euh, seen seen wajur wa ku am juróom-ñetti at mën a visé sëñ Touba ak jamono euh, sëñ Touba li ne ci moom xam ne mën nañoo wax ne li ci ëpp féerigul nga am juróom at mën koo visé kooku ku mu euh, war ngaa xoolaat sa bopp te defarawaat bu baax ndaxte la nekkoon moom kenn umpale woon lim ci yow ndax dañuy wax ni tel père tel fils nit moom bàyyam rek lay nuyu gannaaw mooy bàyyam bàyyam lay nuyu kon nag seen wajur wu teg woowu ah, liggéey bu bu nga xam ne liggéey wax nañ ko léegi bu fekkoon tey da doon dajale dëkk yooyu mu sanc yëpp du ko sanc day dem Touba toog defar étage bu baax dëkk ca kaw defar ko ba mu sedd mu mu toog ca suuf di fi tasu li mu doon defaree forage yi di ko di di di ko defaree jumaa yi di ko def ci daara yi di ko def ci tool yi mu def ko ci poosam wala mu dugal bu saa bu koppatee dara rek bu subaa loolaa lu ñu toll delluwaat waaye nag xam na ni nit nit nit nit yàlla yi li ñu xam mooy lu ñu def dañ koy def ci nit ñi ndax yàlla suñu borom du wàcc ni kenn defal ba lii waaye loo def ci nit ñi suñu borom nga ko def te moom sëñ Ibnu xamoon na loolu ndax ku ñëw li li fi lim léegi ñëpp teg ci seen bopp xam ne lii ay réalisation la yoo xam ne moo ko def. te te te te ca jamono yooyu sax dafa def ko dafa jafewoon jamono ji moom lu wax ñu ne milliard nangam ak nangam waaye booba fi ne loo wax ñu ne milliard mu mu mel ni dara jëfewut dara nag yomb na waaw muy nuru dara jëfewut te tax dara yomb kon ku mel noonu ku ko ku ko ku ko am lii rek lañ war a fekk fi moom bu ñëwee kon sëñ baa ngi leen di digal ngeen booloo nekk benn. jàppante di jàppandoo di yëkkateendoo te xam ne lislaam leen ko jëkk a digal sëriñ Tuubaa dellu dikk digal leen ko euh, doom nii fi jaar yëpp digal leen ko seen wajur bi itam nekkoon ci ndax sëñ Abdu rassembleur la maanaam nit la ko léegi ndax nañ léegi nii jëli ni diw indi jëli diw indi jëli diw indi jëli diw indi te fu oppose fu fu sori lañ nekkoon te loolu lépp lam ci jubloon mooy wane aw yoon yoon woowee nag lenn loo xam ne day tax mu sëkk kenn ku nekk war na koo moytu kon sëriñ baa ngi leen di gërëm bu baax mi leen sant bu baax beneen bu topp may may may tàmbalee sama bopp di digal nit ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci booloo nekk benn ñu sax ci aw ci ndigali Serigne Touba ndax Serigne Touba yi li mu daj jiróom ñaari yi mu am ci géej gi gaynde yeen ko doon boole nag yaag seet yaag poset yeen ko doon jox yooyu yëpp dëgëral diine ak taxawal diine ba diine yegg fi fi fi yonent bi bëggoon mu yegg fa loolu doomu moo tax kon koo xam ne dangaa ngaa wax ne man murit laa wala taalibu sëñ Tuubaa laa di sàggane dara ci diine da xam ni jotewoo ak sëñ Tuubaa dara ndax sëñ Tuubaa diine képp mooy li nga xam ne moom coono bu ko lu mu ñàkk mën nañoo wax ni moom ko xaj lu mu am itam ko jox xoolatoo dara lu dul kon ñun ñi nga xam ne ay murid lañ référence lañ war a doon sëñ Abdoulaye dafa waxoon ni am murid fu mu wéet dafa daa war a jàpp ni fi mu toog mooy sëñ Touba fu mu wéet rek war a jàpp ne moom moo fay représentant sëñ Touba nga xam ne deesu gis ci moom lu ñu ko yore deesu gis ci moom lu ñu wax du ñàkk jom du leen du dara waaye boo xool suñ suñ suñ suñu suñu jamono ji li xew da jël loolu nit ñu diw mi dara baaxul ci moom si su ne nga waxal ko joxe argument yu leer bu ñu def ko bànd denc bu gannaaw subaa nga daal di génnaat ni kii fi gën nii la mel naa la mel naam nangam ak nangam loolu naa fekk mënu koo weesu te te naa fekk du du du damaa jël te jullit dëgg bu ne daa weex na na xool ba wóor ko ni weex na nga xam ne ku moo na ñëwut day xam ne weex bu nee daa ñuul na ko xool ba mu wóor ko ni ñuul la nga xam ne ku mën a ñëw tam xam ne ñuul la waaye waaye waaye léegi wax yi duñ ko yeew fenn koo ci doon waxal sax la mu xaaral ma jox la sama numéro téléphone bu nekk kerek kerek nangam ne la denc arrêté naa ko foo ko wala boo ko téye woon sax boo ko woo dul te loolu lépp ay xeeti war laa ak ak yu sew sewaan yoo nga xam ni bokk na ci li li indi musiba yi ci jamono ji nii fi mu nii. ndax damay faral di ko wax toujours alxuraan dafa doon faral di wax ne bu mooy yàlla di bari lekk di baax di bari war yi bari awra yi nekk ci bitti nee na su boobaa dañ naan diwrooy na dayam diwrooy na baayam diwrooy na nijaayam nangamam nangam allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqum allazi yatanabathu seytaanu min al nas noonu la ko alxuraan wax loola nag ca lañ yegg fi mu nekk kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp tey dénk nit ñi daal ñu sax ci jaamu ñu sax ci liggéey ñu sax ci maalu ñu sax ci di defar tey bañ a yàq ndax ab yàqkat du am mujj bu rafet te du dem àjjana te bu ànd ak seen Tuubaa dangaa war a am mujj bu rafet dangaa war a dem àjjana fa ñu jëmee yaakaar mu kenn ku seen Tuubaa kon nag seen Tuubaa li nga xam ne moom la digle ñun ci la ñu war a li mu tere kenn warul mu loolu mooy mooy mooy mooy melaw ndax dama koy faral di wax ne buñ gasee bu mu xóot ñu takk la nga xam ne boo amoon junniy kër genn kër nga ci mën a fanaan genn kër boogee benn néeg nga ci mën a fanaan benn néeg boobee benn lal nga ci mën a fanaan benn lal boobee fi tolloo ak sa sa bàmmeel nga ci mën a fanaan te bu ñu la suulee wàcce la fa dañ fa yebal ku la man fuuf ëpp la doole yor nga naa yu xarañ te du la yërëm te foofee sëñ Tuubaa a lañ fa kon nañ nañ nañ liggéey sëñ Tuubaa te ci salaamaaleykum wa ñu leen di di di sargal di sargal njabootam di sargal waa jéemul di jot li nuyoo chef de bi nga xam ne moom moo ñu yabal fii di ko jot li Serigne Khadim di ko jot li njaboot gi ñëpp ndax président daf nuyu fu ñu mën a dem rawatina ci baas bu mel nii nga xam ne bâche Darmanko la bu len fa demé na ngeen wax ñu jappalé réew mi jappalé ñaan jamm ci réew mi musu ñoo wax né bu len demee né len ñu jappalé ma ci li né leneen lu mu wax rek dem bu len demee né leen ñaan jamm ci réew mi ndax jamm aussi quand même quel que soit alpha jamm mo ëpp solo ci lépp lu ñuy ñaan xam nga léeg da ngay bëgg dara ba faté la nga am da léeg nga bëgg yoon ba faté la nga am da léeg nga bëgg forage wala nga bëgg leneen te jam jo xamne te jam ma waral ñu mëna tok fi tay di tali am mak mu wax ne euh, solos jam njariñul jam yalla bu ko jam sax xam nam toll ndax bala nga ko xam rek maara di tali safaan ba am te kon yalla bu nu gis safaan ba waye senegal li fi am di dekkando jam di nekkando jam di taxawayu jam këru diine yep ku ne di ci di ci di ci bay sa loolu la président wax ngeen ñaanal ko mu continuer ñaan réew mi nekk ci jàmm nekk ci dal te képp koo xam ne moo ko mën a yor te yàlla nekk sama waay yàlla na ko teg ci jàmm ndax jàmm nu jik ñun lu fi mën a am le vingt cinq décembre incha allahu rabbi dañuy xëy nekkaat yi bokk rek ku fi mën a ne nekkal fi nekkal fi réew mi kon nag ku mën a doon rek yàlla na indi jàmm té no ngi ñaan nak mu nekk nga xamné ñun mom lañu gis né moy suñu waaye muy le président Macky Sall di nuyu nak Serigne Ahma bu baaxa baaxa baaxa baax ndax Serigne Ahma su fekkee ne damay ñëw jéemul di fi dox si ak mbokk mom moo tax moom moo fi njëkk indi te loolu nag su dem warna ko mëna sédé ndax moo dox moo nekk xam li ma bokk ak moom dañu bokk suñu maam sëñ Madiba Sylla mu taxaw ci fexe ba li ma fu ma mën a ne mu jox ma cër ba mu nga xam ne euh, moom la ma war a jox indi ma ci sama biir yi bokk mooy lu ma neex lool di ko ziyaare bu baax di ziyaare aussi soxna yi di ziyaare soxna soxna soxna Njóoba laa njëkk a wax ndax soxna Njóobu damay bañ mu mer waaye soxna Bintaay sama xarit <laughs> waaye <laughs> ñoom ñëpp benn lañ ci man ñoom ñëpp ñoom la ma bokk ku ne ku ne fi nga ma war a féete féete nga ma fa waaye nag soxna soxna Binta moom wax dëgg yàlla yàlla moo moo moo moo moo bind mu nekk sama féete loolu la yàlla def kon nag maa ngi koy seede mbokk yëpp di ko ziare di ziare mbokk yëpp di nuyu euh, famille bi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu sëriñ sëñ Seexul Xaddim di nuyu mboolem njabootu sëriñ Touba gi ne fii di nuyu bu baax a baax sëñ Mourtala moom gàdd yàlla di nuyu sëriñ Bayti Kan di nuyu sëñ sëñ Gumba Amar di sama mag di sama xarit di nuyu soxna Faat Ba bu Amar ak mboolem mbokki dara manko yi fi nekk yépp ak yi fi néewul ak yi am yéenay ñëw di jeexal sama wax nag ci fi nga xam ne moom la sëriñ sëñ euh, Cheikh Baara waxe jeexale euh, ndax mbokk gi moom nu ko gën a yaatal rek moo koy mooy gën a defar kon nag ñoo ngi leen di ñaan lépp luñ ci man ngir defar rek yàlla na ko yàlla na leen ci yàlla dimbale ndax sëñ Ibnu Amar loolu dong la fi nekk woon lu yàqu moo ko daan defar lu mës a dëng rek moo koy jubbanti te lii moom euh, wane na ndamam tey ndamam moy moy li moy, fexé ba djémul ak lepp di nek ay dëkk dëkk bo xamné ne ku fi ñëw tax bokk yépp tafé fi kon ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mënumaa jéxal wax bi nak ndax té ñaan luwuma sama ñaanuk bop ndax loolu tamit kon damay ñak fayda tay it yàlla bindewuma ñak fayda duma dem ci barabub ñaan te duma ma ñaan sama bop, ginnaw bu ma waxé dañ ma yónni ba nopi ma ngi leen di talal sama loxo di leen wax ngeen ñaanal ma ndax it lu baax la bëgg te lu baax laa bëgg ci sama biir bokk te lu baax laa bëgg ci réew mi kon it lii nga xam ne muy sama yéene ci li ci lu baax yàlla na maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal nu yàlla mënal nu ko ba nu mën a ñun tamit sunu yéene ñu mën koo yeggale lépp loo xam ne am nañ ko yéene te du te naka su dul noonu la yàlla na ko yàlla génnat sunu xol te yàlla def nu ay taalibey Serigne Touba def nu nuy liggéeykatub Serigne Touba fu nu mën a ne fu nu mën a ne ci àdduna re yàlla na fa nekkal Serigne Touba te it Sëñ jàpp naa ne fu ne lañ ko war a mën a nekkal fépp foo xam ne ay nit a fay daje ay jullit di fa daje ak yeneen yi rek Sëñ Tuubaa war na fa am ndaw te yàlla nañ fa nekk ndawal Sëñ Tuubaa kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. soxna Boussa Amar ba ci soxna fa sugu mii toog soxna Umul Sugu ànd soxna Bintu Amar boo ma limee nag dinaa juum waaye xam ngeen ne sama xol sedd na guy ndax ni ngeen ma jàppalee. sëñ Xaalid la ma la waxoon ci bëccëg du ma ci teg lu bari sant naa la ca xam naa ne yaa ma téye bu baax a baax ndax boo defoon ne man de yaakaar naa ne diggante bi am na nu muy demee waaye yaa ngi may fàttali bis bu yàlla sàkk ne ma sa papa fokk fekk na sori moog sa ñim mu jëm bitim réew jàpp ci sama loxo jàpp ci sa loxo ne ma seex na ngeen jàppante yaag sañ bii kon la nga war waroon def lépp def nga ko waaye maa ngi lay sant di la ñaanal yàlla nga yàgg fii suñu kanam yàgg sa rakk yii sëñ Axma nag moom damaa féete woog moom wax dëgg yàlla ndax xam na fi ma ko teg xam na fi ma fi ma ko féete xam na fi ma ko féete lii ngeen ko jox itam muy lu diis ci moom suñ borom yàlla na ko téeñal ba lu ci am benn gàllankoor mook ñi mu ko àndal ñëpp. sëñ am Amar nag laa jox sama kàddu li ci des lépp dama koy tënk ci biir bu la gën a rafet dana ma ko àggalee maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla boole jàmm ñu teewaat ko déwén bi jaay na Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh